Euh, bi mbir mi jógee muy opposition pouvoir yëpp dañ ci ànd euh, mais bu ñu garder comparaison bi rek gis nañ keroog tamit premier ministre France mu dem assemblée nationale gars yi kii ko bu baax mu wax ne même ci état d'urgence tamit assemblée nationale dafa war continuer def rôle am di contrôler l'action de l'exécutif mais pour man président Macky Sall coow li yëpp aussi moom moo ko teg boppam parce que bu dee da def déclaration ne dangay ngay mettre en place un comité de pilotage boo xamante ni moom moo war a defal def lépp tey moo war a def lépp dans cette affaire la mais waroo jël ay décisions aussi ci ginnaaw boo tegagul la comité de pilotage bi nga waxoon ne da nga bëgg mu inclusif parce que comme da nga jóg bi mbir mi jógee sénégalais yëpp ñëw adhéré parce que en temps normal Euh, ay recette u état la ñuy jël di ci di ko jëfandikoo ak yeneen ak yeneen. fii nga am problème nga gis nit ñi ni ñuy dundee nga dem foo xamante ni gis nit ñi accès à l'eau accès universel li ñuy wax nii Mame Boye Diao xam na ci dara il vient de Kolda. la réalité mooy tey nit ñi dañ leen di jox lu ñu saabu saabu bu sangoo tous les hommes politiques son sur le terrain pour maye saabu on est dans un pays boo xam les gens amuñu saabu et après on vient nous dire que nit ñi tey jii kan moo ci am problème mu saabu ci ñun ñi. mais am na ñoo xam dañuy dem di leen may saabu ba pare di ko di ko photo di ko wane ci internet bi. c'est ça la fii nga am problème nga gis nit ñi ni ñuy dundee. nga dem foo xamante ni gis nit ñi accès à l'eau accès universel li ñuy wax nii Mame Boye Diao xam na ci dara il vient de Kolda la réalité mooy tey nit ñi dañ leen di jox lu ñu saabu saabu bu ñu sangoo tous les hommes politiques sont sur le terrain pour maye saabu on est dans un pays boo xam les gens amuñu saabu et après on vient nous dire nit ñi tey ji moo ci am problème mu saabu ci ñun ñi mais am na ñoo xam dañuy dem di leen may saabu ba pare di ko di ko photo di ko wane ci internet bi. Mm. c'est ça la fii nga am problème. nga gis nit ñi ni ñuy dundee. nga dem foo xamante ni gis nit ñi accès à l'eau accès universel li ñuy wax nii Mame Boye Diao xam na ci dara il vient de Kolda la réalité mooy tey nit ñi dañ leen di jox lu ñu saabu saabu bu ñu sangoo tous les hommes politiques sont sur le terrain pour maye saabu on est dans un pays boo xam les gens amuñu saabu après on vient nous dire nit ñi tey ji kan moo ci am problème mu saabu ci ñun ñi mais am na ñoo xam dañuy dem di leen may saabu ba pare di ko di ko photo di ko wane ci internet bi. c'est ça.